Bon, je suis avec euh, Moussi euh, euh, Diallo, euh, le président CODEC. Donc, je suis avec Moussi Djamboy. En même temps, le président de la commission éducation, de Latmengue. donc, nous sommes En même temps, aussi, sur une question, moi, fille, nan ngeen di dundé éducation bi donc d'abord nous nuyu képp koo xamante ne yaa ngi seetaan TM n'est-ce pas. Mm-hmm. donc euh, di leen di leen di ñoom ñëpp di leen jaajëfal. donc euh, question bi nga may posé dinaa ci sawar a laajte parce que sûrement c'est euh, au niveau de de la mairie. Mm-hmm. li jëm ci maire Makumba li muy def ci éducation n'est-ce pas nga may laaj. donc moo tax ma ne dinaa ci sawar a wax parce que ñun envié wuñu kenn ñun au niveau de la commune de Latmengue, en matière d'éducation. Mm-hmm. bi mu mën a wax envié wuñ kenn maire mu ngi dugal loxoom guddi dugal loxoom bëccëg ci mbiru éducation bi ci mujj rek mooy barki dëmb daf ma woo ne ma am na ay kit scolaire yi ñu war a joxe mais kit scolaire yooyu man dama bëgg jox ay matière matériel informatique lycée yi ak collège yi nekk ci biir commune bu Latmingué yëpp loolu barki dëmb rek la ma woo di ma ko wax ba man ma koy fàttaliku boobu jox nañ ñun éducation maanaam les codec codec yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci commune wu Latmingué ñetti codec la codec bu nekk jox na la ordinateur mu ne la sous mu jox ñu euh, ay kii euh, kii ay ay imprimante imprimante yooyu nee na saa yu ñoo xamante ne jàpp nañ date pour def kii boobu noonu joxe matériel informatique yooyu naa ko rappelé mu indaale informatique yooyu noonu imprimante donc ñun au niveau de la commune de Latmengue en matière d'éducation et au-delà de ça d'ailleurs mom du du éducation rek lay ki mais comme en tant que président CODEC en tant que euh, président de la commission éducation ma waxé fofu c'est sûrement dina am ñeneen ñuy waxé ci walu donc éducation euh, suba rek suba rek ñu ko parrainer ben journée journée bobu noonu ñun ñëpp dañ fa wara dem journée bobu parrain bi bi ñu koy parrainé tegu ci baat IF en personne inspection de l'éducation et de la formation ñom ñoo fa dem tann ko ci département Kaolack yëpp seppi ko mom donc docteur Macoumba Diouf ne ko yow lañu ñu parrainé suñu bës bi tegu ci benn baat ne man li ngeen ma kii nii li ngeen ma tànn comme parrain seppi ma ci mbooloo mu ñekk yëpp ci responsable politique yi nek fii yépp ci département Kaolack ngeen sepp ma euh, tuddee ma bés bi duma ma am lu ma ci sudee rafetlu ko mu remettre ñu enveloppe au préalable enveloppe la ñu remettre duma permettre tuddu somme euh, Oui, way vraiment mu remettre ma bonne ci délégation bu yóbbu woon enveloppe bobu non jox remettre ko IF. Lolu barki demb la té néna na gout bi ñu yóbbu enveloppe dafa ne nañu defaale au préalable nañu jëlalé devant yi en matière d'organisation

deux lycées deux collèges deux cases des tout-petits Quand nous connaissons xam nga école élémentaire moi, nekk compétence transférée Mon maire fa la war intervenir mhm. mais li ma la wax sànq là, la mooy imprimante il mu war jox lycée et collège yi mhm. xam nga sens? laa wax ci Le te du du domaine d'intervention kon mooy ne moom dafay laal fépp mhm. te ni mu ko defee foofu noonu la koy defee ci santé defee ko ci hydraulique defee ko feneen ak feneen ak feneen je vous veux être très clair. Nous n'avons à envier, autant pour moi, comme Olof lañ nekk envier wuñu kenn kenn kenn lañ envier wu ci maire. parce que ñun dañuy dem ci ay ndaje sax di représenter maire suñu waxee Macoumba Diouf rek dañu ne non non kooku moom kooku yéen yéen a am maire. ñeneen communes yi dañu ne yéen yéen a am maire waaw donc ci li nga ma laaj ci mbiru fourniture scolaire fourniture yëpp yemb na fourniture yëpp a ngi sur place d'une valeur de 6 millions kooku fourniture yem na moom mu joxe date rek ñu distribuer mom mo ci des fourniture yëpp yemb na tout est en sur place demb demb man la ko vérifier demb wa la dem vérifier les fournitures yi d'une valeur de 6 millions ça est en sur sur place ça est sur place dans la mairie yéen su ngeen bëggee sax su ngeen démé suba ñu ubbi woon leen wala tay su ngeen démé ñu ubbi woon leen fourniture scolaire yooyu waaw. en tout cas ñu lay remercier bu baax. voilà sante len gërëm len su dee amu leen beneen question quoi vraiment. jërëjëf xam naa loolu rek la won quoi en tant que le président ah mais en tant que le président donc dédication donc pour demain wala pour après sax dina ñëwaat ci ay questions incha voilà voilà merci donc. merci jërëjëf allez Tempe jërëjëf.